ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريد تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يرد يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتوا يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه min xayrin tajiduhu inda Allah inna Allaha bima ta'maluuna basiir bu ko doon defee jàngalaa ñu benn barab rek mu daal di doy a'uudu billahi mina shaytaani rajiim وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا صدق الله العظيم الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين rahmatan min rabbik innahu huwa as-sami'ul 'alim rabbi as-samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلاً إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله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 ومناة الثالثة الأخرى فله الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله ما نزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء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 عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا عند الله وما عند الله خير للأبرار لا إله إلا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان فوقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم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 عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا waaw mooy bu ko defee da ngay jàngal beneen barab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين بسم الله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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح أن تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق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 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الدين التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التالي التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون له من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة إلا عن موعدة وعدها إياه فلما ما تبين له أنه عدو لله عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق الله العظيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها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 sadaqallahul aziim alhamdulillahi wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo mi yépp di ci jiital suñu ñaari wayjur bu góor ak bu jigéen di nuyu ustaas yi ñu nekkal ci dara ji nga xam ne ñoo ñuy jàngal di nuyu suñ mbokku taalibe yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal nekk ci daara di di jàng waaw Cheikh Tidiane bi de yaa ngi ma laaj lu nekk ci koor ak ngëneel loo xamante ni moo nekk ci weer wi koor am na ngëneel yu bari yu ci nekk waaye bi ci gën a ràññeeku mooy bi yàlla ci xadiisul qudsi ne doomu aadama ji jaamu yàllam yépp moo ko moom ba mu des koor man maa ko moom maa koy fay loolu la waxoon ne kullu amal ibni aadama lahu illa sawmu fa innahu lii wa ana ajzi bihi maanaam am na fay gu ci nekk gu jago goo xam ne nii yàlla koy mengal boppam lool nag soo ko doon misaal tey ci mbiri àdduna mi ngi mel ni ab buur bu waxoon ne dafa bëgg ñu ko jëmbatal ay garab bëgg ñu ko gasal ay teen bëgg ñu ko xalal ay yoon santaane ay liggéey yu bari daa di ne liggéey sàngam moom ku ko def ba pare ci man ngay ñëw maa lay fayal sama bopp kon liggéey boobu kon ku ne dana xam ne ñépp ci moom lañ jëm ndax ku ne dana xam ne fay ga dana duuf kon loolu weeru koor koor moo ko jagoo muy ngëneel lu rëy weeru koor am na li mu jagoo moom weer wi nga xam ne ci weer wi rekk la mën yeneen weer yi amuñ ko weeru koor mi ngi jagoo saa yu agsee rek ñi ibbu buntu aljanna yi tëj buntu safara yi tënk seytaane ba nga xamante ni def lu baax dafay yomb def lu bon dafay jafe loolu la waxoon ne ida jaa ramadaanu futtixat abwaabu aljannati wa xulliqat abwaabu nnaari wa suffidat alchayatin mboolem te teggin suñ ko waxee mooy yaru ci say wax ak ci say jëf ak ci say doxalante ak nit ñi jox respect jaamu yàlla yi surtout ci ñi la mag yërëm ñi la féetee ndaw loolu mooy teggin si gàttal teggin bi mun naa dem ci lu bëree waaye lu mu bëri bëri rek borom xam-xam yi seeti nañ ay xadis tudd leen ne mboolem teggin yi yi ci xadis yooyu lañ dajaloo xadis yooyu la tuddal waaw xadis yooyu ñeent lañ bu ci njëkk mooy fi yonent bi sallallahu alayhi man kaana yuminu billahi wal yawmi al axiri falyaqul aw liyasmut ku gëm yàlla ak yonent bi ak bis na wax ab yiw wala bu amul wax ci yiw na noppi. ñaareel ba mooy fi mu waxee min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa bokk na ci luy taaral diine nit ki mu bàyyi lépp lu ko amulut njëriñ njëriñal boppam njëriñal mbokkam njëriñal dundam njëriñal diinam njëriñal addunam njëriñal àllaaxiram loo xam ne gisul na loolu njëriña ci rek ci yooyu ma lim daf ko war a bàyyi ndax mooy taaral diineem ñetteel ba ñu ngi ko jëlee ci abu hurayrata qaala anna rajulan qaala linnabii sallallahu alayhi wa sallam awsini qaala laa taxdab fa raddada miraaran qaala laa taxdab mu ne benn waay dafa wax yonent bi ne ko dénk ma yonent bi ne ko bul mer mu demaat ñëw yonent bi ne ko bul mer ñàkk mer itam gis ngeen daya bi jox mer day andi lu bëree bëri soo meree rek mun ngaa def xay kon nen mooy tëndiku mer bu baax ñeenteel ba mooy fi yonent bi waxee laa yuminu ahadukum xatta yuhibbu li axihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen ak ngëmam du mën a mat lu dul lim bëggal boppam mu ngi koy bëggal mbokkam jullitam ñeenti xadis yi la boroom xam-xam yi setti ne kum nekk ci yow rek mbooleem teggin yi daje na ci yow asalaamaaleykum wa rahmatullah di dugg sa néeg wax bismillah ak di lekk wax bismillah ba tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam digle ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngëneel bu nekk ci loolu mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis boo xam ne jaabir ibn abdillahi moo ko nettali mu ne dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ida daqala rajulun baytahu fa dakara allaha inda duqulihi wa inda taamihi qaala ash-shaytaan laa mubiita lakum wala ashaa wa ida daqala falam yadkuru allaha inda taamihi qaala adraktum al-mubiita wa ashaa mu ne dégg na yonent bi nee na nit ki bu duggee ci néegam mu wax bismillah buy lekk itam mu wax bismillah seytaane bu fa nekkee day daal di daw dawaloo ay mbokkam ne leen fi amoo leen fi place pour tëdd amoo leen fi itam cër pour lekk waaye bu duggee ci néegam te waxut bismillah wala muy lekk te waxut bismillah seytaane day daal di daw wax ay mbokkam ne leen ñëw leen tëddukaay mu ngi nii pour yéen pour ngeen tëdd ak cër mu ngi nii pour yéen pour ngeen lekk su ko defee nag foofu bu fa doom juddee ci waxtu woowu nga xam ne seytaane yaa ngi fa fanaan bu nekkul doomu seytaane itam seytaane danga am ci moom cër lekk bu fu nit lekk ci waxtu woowu mu bokk seytaane su fa borom jugee ko jëf yu mu jëf yëpp seytaane daf ci am cër du def lu baax walla bu defee lu baax mu jar ko jëfi seytaane te loolu ñëpp li ko ciy mën a musal mooy bi dugg ci néegam mu wax bismillah buy lekk asalaamaaleykum. jàngee ba mokkal dundu bi tey am na ñaar ñoo xam ne ñoom bëccëgu weeru koor lislaam daf leen may ñu dagg waaye atte yam leen ñu àtteel danaa ko wuute alquran jàngal ñu ko ne wa ala alladina yutiquunahu fidyatun taamu miskin ñooñu nag borom xam-xam yi séddale nañ leen biñ leen séddalee kenn ci li muy def ñu tuddee ko kenn ci li muy def ñu tuddee ko itaam ndax mën nga ñoo détaayal ñaar yooyu noonu muy fidiya ak itaam alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñii nii mbooloo mi jullit yépp ñu jiital suñuy waay jur yi ak seen usaas yi ñu bokkoon nekk ci daara ñuy jàngal yépp ak taalibe yu mbokk nekk ci daara ji di jàng seediyaan bi tey ma ñëw tontu la ci laaj bu ma laaj nii ma waxal la lan mooy fidiya ak lan mooy itaam ka nga xam ne dafa dagg munta woor ngir màgget moo xam jigéen la wala góor la wala dafa bëri li muy mar kooku lislaam daf koy may mu dagg waaye saa jant bi sooyee rek dana joxe liibaru ceeb bu fekkee kuy dindee ceeb la walla dugub kooku loolu muy def la ñuy tuddee fidiya loolu mooy jotu amma jigéen bu ëmb mu ragal li mu ëmb loru wala muy nampal te am ku ko nampalal doom ju du am li dina loru ñooñu dañ leen digal bu weer koor bi jeexee ñu fay fan yooyu noonu fan bu ñuy fay rek ñu génnee benn liibar ca la dundee loolu la ñuy tuddee itaam mooy lu ñuy tuddee qada muy ndogal ak xarte muy ñaar yoo xam ne alquran saxal na ko saxal na ko njëkk alquran di ko saxal nag yonent bi sallallahu alayhi wa dafa doon jàngale tawxid wane ne yàlla mooy dogal yéeféeru Quraysh yi wéddu ko ci ni alquran di wàccee yàlla ni muy waxee naan maa bind asamaan maa ku dee maa ku dund maa dundal maa joxe wërsëg yàlla wàccee alquran ngir fen ne inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar lépp lu mënta am rek ñun yàlla ñoo ko bind du suñu dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit waxaat ci beneen bi qada'in wa qadar hatta al ajz wal kayd mu ne lépp lu mun sa am ci ci yàlla la amee ak ci ndogalu yàlla ba ci nga xam ne danga kaa mu am xel am kàttan ba lu mu bëgg def mën kaa def ak yi nga xam ne danga kaa mu lottu mun ta def dara loolu lépp ci ndogalu yàlla loo xamante ne lu wér lépp lu mun sa am rek ci ndogalu yàlla la amee ak ci xàtteeb yàlla waaye yeneen bi dafa jàngale benn xadis am lum tudd ne bu ne am na dara lu mun a jiitu ndawal yàlla wala lu mun a jiitu xatteef yàlla konoon loolu lay doon te man gis naa ne nag loolu nekk mu ngi yàq te nit ñi bàyyiwul ko xel ma bëggoon nag loolu noonu yeneen bi juñoon tuddoon ci xadis boobu noonu nga wax ma loolu mooy lan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ismi Cham Touré tilmiid fil madrasati daarul qur'aan ana huna li aqra'a lakum aayaatin min kitaabillahil kariim Cheikh Tidiane bi tey yaa ngi may laaj ñaari ngëneel ñaari ngëneel yooyu nga may laaj benn bi loolu mooy bët bu aay yonentu moo ko wax ci xadis ne al aynu xaqun walaw kaana shay'un saabiqa al qadri sabaqatuhu al aynu mu ne bët bu aay dëgg la bu fekkoon ne am nga lu mën a jiitu ndogalu yàlla konoon bët bu aay lay doon kon lañ def attaas mu waxaat tamit ne mbooloo bu teewoon nga xaaj mbooloo ma ñett xaaj benn xaaj bi yëpp li leen yóbbu alaaxira mooy bët bu aay buñ fàtte ragal bët bu aay moo taxoon yonent yàlla yaquba alayhi bi doomam yi di dem misra ci seen bokkuma yuusufa mu waxoon leen laa tadxulu min baabin waaxidin wa min abwaabin mutafarriqa yéen ñëpp bu leen bokk jaaree ci benn buntu na ngeen tàqalikoo ñii jaaree nii ñii nii kon nag nañ def attention bu baax ci bët bu aay ngir daange bu nga xam ne moo ci nekk wa asalaamaaleykum wa قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار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 تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها wahidin bi aynihi wa ismihi aqulu wa rahmatullah mbokk yi gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonent bi wa sallama ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp muy góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di nuyu ñi nga xam ne ay shura ngi nuyu tamit ñi nga xam ne ay suama u lañ waaye ñi ngi nuyu ñi nga xam ne tamit ay suada u lañ ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam muy nuyoo bi nga xam ne moom lañuy yàlla boole muy baat yu teey te sell bàyyikoo ci ku doy di jëm ci ñu la muy asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyoo boobu nag dañ koy yëkkati teg ko ci loxool Seydi Maam Omar bi tey moom mi nga xam ne moo ñu takkee ba yàlla xéewalal ñu jotaay bii di ko sant di ko gërëm di ko wax ne jotaay mënta ñàkk amaan na moom jotaay bi bu ñu ci oowutoon ñun ñu uyu ci jotaay boo xam ne du neex yàlla kon loolu danañ ko ci sant gërëm ko ci gannaaw buñ ko nuyoo dafay mel ni ki kenn lañ nuyu waaye nuyu nañ ñaar ndax bu ñu nuyoo maa Omar Biteye ci famille Biteyeen waaye dafay jàll tamit ci famille Touré ndax foofu laa jëlee lii muy tey jii muy meññet ñun ñu si meññetu waaye bu ñu nuyoo ñaar ñooñu it dafay jàllaat ci yeneen ñaar yeneen ñaar ñi mooy nuyu nañ képp koo xam ne ni yaa ngi yëngatu ci tariixa tijaan waaye nuyu nañ képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci diine lislaam kon nuyoo bi dafay daaj dajal mboolem ku fi nekk muy ñeenti nit rek. di góor ak jigéen di mag ak ndaw kon ñeent ñooñu moom lañ fiy nuyu di génnee nag ay kàddu sant ak ngërmaande kàddu sant ak ngërmaande nag mënta romb sant ak ngërmaande waaye ma Omar liñ lay wax mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne inna allaha yarfa'u bi hadha alkitaabi aqwaman wa yada'u bihi al axirin yàlla de nee na bi sallallahu alayhi wa yàlla dana yëkkati aw nit ci téere bii nii muy xale yi doon jàng waaye dana ci tëral timit aw nit kon ñun dañuy sant yàlla bi nga xamee ne am nañ yaakaar ne yàlla yëkkati nañu si lu tax mooy Baay Ñas ci boppam nga xam ne mooy suñu sëriñ waxoon na ne kitaabun minallahi jalilun jalaaluhu qadimun wa baaqin la yaqaafu zawala téere boobu nga xam ne ma nga bàyyeekoo ci yàlla mu kawe mi nga xam ne wàcce na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nga xam ne yonent boobu jàng na ko ci yalu waaye jàng na ko ci béral tey jii ñun bu ñu yàlla xéewalalee ñu doon ay doom di doomi lislaam ñu amaat doom yar leen ci daara ñu ñëw di ko jàng comme ni ko Baye waxee ne yonent bi jàng na ko ci yalu ne yonent bi jàng na ko ci béral ñu am ay doom ñu teew ñu di ko jàng ci béral kon dañ ciy sant yàlla bu baax di wax ne li gone yi tàmbalee woon ci ay bayti baay rek loolu doyoon na jotaay bi pour ñu tasaare ko mu yëkkati ko leneen liñ ci dolli mooy di seddaloo mbooloo mi waaye di ko seddaloo maa Omar bi tey moom mi nga xam ne benn groupe lañ ubbi muy groupe WhatsApp ñu dajee ci di sottiyante ay xalaat ñu yëkkati xalaat yooyu ne ma kon tey jii yow la ñuy jël jiital la ci biit njaboot googu noonu wala ci biit parents di lëf yooyu waaye duut ay xat du xam-xam du man-man ñoom ñoo xool rek ñu yëkkati jagleel ma ko waaye gis naa ñoo xam ne ñoo ma ci gënoon a jag muy ku mel ni ki Baye Thiam nga xam ne keroog bi biñ jotee toogaa biñ dajee ci biir groupe bi am lu ñu waxtaanee ma jàllale kàddu yi keroog Baye Thiam dafa def loo xam ne nii gis naa ko ci bay seeni mu daan ko def waaye gannaaw bu mu ko defee damaa gisaat aaya alquran Baye di nettali mu dikkee noona cib safaan te moom mu dikkee ko ci mbégte parce que Baye dafay wax ne boo demee ci suurtu Yaasin mu ne yàlla bi muy wax naan Euh, asi jahannama lati kuntum tuaduna islawha al yawma bima kuntum na bàyyi mu ne dara gënu cee métti lu dul lii de safara la yaa ko weddi woon dugg ci tey tey waaye keroog bi ñu waxee ne nañ seet nuñ dimbalee maa Omar ci bés bii nii nga xam ne suñu bés la moom Baye Thiam bi mu jëlee kàddu ba wax daf ne man lay taaye naa ko ci fukki junne ma daal di yëkkatiwaat sama kàddu am ñeneen ñuy ñëw am kenn ku ci wax mu ooku na ko yow sama mbokk nga sañ naa laa forcé damay forcé sa loxo li lay waxal ne maa Omar nit ku ragal xàq la bi ma yónnee kooku Omar la jërut ma di ko ndax dama ne ko yow daara ji sa daara la ndax ki moom daara ji yaa koy jox sagar sa doom ma nga te aussi it sa doomu nijaay la kon yow Omar dañuy wañ sa loxo xeeb nañ ñaan dañoo bëgg nga dolliwaat sa wërsëg maa Omar daf maa oo téléphone ne ma bul forcé kenn loolu yëpp mu ngi ci ragal xàq di ko wax ne ko ñun kay yow yaa ñu topp àq waaye ñun toppuñ la ndax boo xoolee xale yi li ñuy wax fii nii ku ne xam ne ni ñun mënuñu koo fay kon nag maa Omar li ñu lay wax mooy la waaju waxoon lekk xuulu lahu buurik te yaa su sudduhaa faqru diini kulli yawmin tan foo ñun de suñu doom bu màggee incha allah danañu la wax loolu bu ñu dund waaye suñu doom it suñu màggee ñoom danañ la wax lu ëpp loolu ndax li gën a métti ku ci jaar ku ne xam nga ko muy jàng alquran ak li nga xam ne moo ci nekk ci ay coono li nga xam ne moo ci nekk ci ay sikkaange benn bés rek la sëriñ daara di baax mooy bésu tey jii nii képp ku ci sa doom tari nga dégg li muy wax mu neex danga na sëñ daara moo baax waaye bu tey passé la ngay dégg yépp ay tawat lay doon jëm ci sëriñ daara kon nag sëñ daara ñu ngi lay njaaraama di la gàcc ngaalaama di la wax ne la yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla yokk sa wërsëg yokku sa man-man yokk sa xam-xam te dimbale it ñi nga xam ne ñoom ñooy dimbale daara boo xoolee ñun ay doomi daara lañ wala moom moo dekkal Sénégal ñi gën a foor ci réew mi ñu de leen tiituroo koo ci laaj doomi loolu rek mu ne doomi daara laa boo demee ci Serigne Touba boo ne ko doomi lan nga mu ne doomi daara laa boo demee ci maam Maodo nga ne ko doomi lan nga mu ne doomi boo demee ci maam Alhaji Abdoulaye nga ne ko doomi lan nga mu ne doomi daara la boo ñëwee ci Bagnès mu ne doomi lan mu ne doomi daara la sang yi toog fii yépp koo ci joxoon sa loxo na ko doomi kan nga mooy la doomi daara laa kon nag daara jooju moo ñu takkee tey jii ñi ngi ñaan yàlla mu doon takk boo xam ne ni yàlla bu mu tekkee ko ba ilaa ngi ñaan yàlla di gërëm di kontaan liñ bëggoon a wax sax xaj ne mënuñu koo wax ci ak nañ ko bëggoon a waxee waaye xol bu sedd ak mbégte moo ñu tax di wax di wax ne maam Omar ñu ngi lay seddaloo timit ne leen lenn ci parent yi jamono moo leen jafe xam nañ ci dara ndax dañuy yëkkati suñu téléphone di leen xoo am na ci ñoo xam ne ñoom li ñu lay wax mooy ne su ma ko monoon de tey dama koy def yëkkati naa sama téléphone oo ci nit mu ne ma sama waajur dafa feebar fa ni yëpp waaye su ma paree danaa yëkkati dara ma joxe ko te nam ko waxee woon def na ko loolu yëpp mi ngi wane ak bëgg waaye bëgg goo xam ne bëgg na ko alxuraan waaye bëgg na lu mu a bëgg kon nag mbooloo mi ñi ngi wax ne daara jaa ngi nii nag di tàllal loxo ku nekk ku nekk xam na Maam Omar ni mel du dem ci kenn ne ko dimbali ma waaye ku nekk xam nga daara lan la soxlawoo parce que daara nag. jot na tey doomi daara taxaw defar daara mais kenn du defar daara lu dul doomi daara boo demee ci école yi ñuy jàng français ñi ngi def ay assos di def lu ne réew mi dëgg la état Sénégal français la tëddee waaye nag ñun it war nañoo doon benn dank boo xam ne ni lépp luñ bëgg taxawal ci daara ñu mën koo taxawal te kenn du ñu si dimbale waaye foo ñu fekk sëñ daara mu ngi sol ay yëre yoo xam ne dafa doy waar su boobaa kenn du ko xemeem ba di ko jox daaraam boo xoolee ci jàngale mii muy njàng français bi da nga ko fi fekk amutul benn xale boo xam ne nii mi ngi jàng ci école bi nga ne ko ndax bëgg ngaa jàng doon maître mu ne la déedéet mu ne la waaw déedéet la lay wax lan la bëgg doon ay mbër laa bëgg doon lan nga dugg doon ay fecckat laa bëgg doon lan nga bëgg doon ay leneen ak leneen lu ko waral mooy jàngalekat yi ci boppam ñoom ñoo suufeel seen bopp te yónent bi ba ko yàlla yónnee daf na ko woon amana rasul bi maa unzila ilayhi min rabbi gëmal sa bopp ba pare ñi la topp doom laa gëm wala ñun ñu ko jagleel nañ gëm daara ba pare ñi nga xam ne ñoom ñoo ko xemeem ñu daara ñi siy fekk kon nag dañuy wax ne mbir maa ngi noon la bàyyi waxoon fa la ñuy tëjee suñu wax doomoo jaaral fa baay ja jaaroon dégg ya jamoon baay ba jam la nga àgg fa baay ba àgg wasalaamu aleykum rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa ala mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi salaale alayhi wa sallam dañoo xeen ay kàddu yoo xam ne dañu ko yónni waaye ni ko seen boroom war a jotalee ñun lottu nañ ci jotalee ko noonu kàddu yi nag ay kàddu yoo xam ne nii dafa làmboo kontante dafa làmboo ngërmande dafa làmboo it sant muy Adja Asmaaw Touré mi nga xam ne ci parents yi la bokk waaye ñaari rakkam ñu ngi toog fii nii walla magam ak ak rakkam ñu ngi toog fii nii waaye ñu ne maanaam jébbal nañ ma kàddu gi pour li ñu waroon a wax mu wuti leen ci li Ahmed Cissé wax sànq lu wér la te loolu ñaari boor yëpp buñ ko ci xoolee dañ ko ci fekk muy asmaaw mi nga xam ne nii moo yónnee doomi daara la parce que ku xam Mawlana Bay si Omar radiallahu anhu da xam ne borom daara la doomi daara la waaye ku xam maam alaaji muxtaar it da xam ne borom daara la doomi daara la waaye ci ki ñuy yónnee kàddu ngërmande it ku ko xam danga xam ne doomi daara la ku xam bayam bayam a roqi da xam ne doomi daara la ku xam maamam maamamar Seynabu da nga xam ne doomi daara la sëñ bi wu nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ngërëm baa ndi koo xam ne xamut xamut na xam na commencé wala waaye xamut dayoo moom nag koo xam ku ne li fi amee Cissé wax sànq ci gannaaw koo xam da nga xam ne moom umul masakini la te loolu daf ñuy delloo ci jamono yonent bi sallallahu alayhi fanaa kenn ci soxnaa yonent am na kuñ ci tuddewoon umul masakin ci jëf ja ak ci jikko ya maawar bi tey soxna si nee na mi lay sant mi ngi lay gërëm xam na amee sise wax na sànq comme ndimbal li muy indi ci daara ji ak ndimbal li muy def ci daara ji waaye tey dañuy wax ne su fekkoon ne daara ji nekku fi kon fu mu koy def kon yow mi sampu daara ba mën a am occasion pour jox la ndimbal dafa mel ni que kon yow yaa ko dimbalee loolu nag daf ñuy delloo ci alquran parce que alquran daf ñoo wax ne taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan te loolu mooy seen jëflante yéen ñaar buñ demee ci beneen aaya wax wax nañu ne wataas watawaasaw bil xaqi watawaasaw bi sabri te mooy li nga nekk nii rek sëñ bi yow ku la jàpp ku ne jàpp na ku jara jàpp ku la ngëb it ngëb na ku ngara jara ngëb parce que ñaari xadis yoo xam ne nii bu ci ne bu wér la ahlul alquran hum ahlullah beneen xadis bi xayrukum man taallama alqurana wa allama te ñaar yëpp daje na ci yow alquran nag moo nekk loo xam ne nii dañuy wax ne ak buum la goo xam ne yàllaa téye yàllaa ko téye beneen buum gi daf ñu ko yor ñu ne nag ku jàpp ci buum googu la budda an yasila ilallah xaj na nag gis-gis boobu ak sew-sew boobu moom la soxna si am ba téye la waaye mu ngi feeñal kàddu ngërmande ak kadduy ngëneel ak kadduy ndok ci beneen beneen boor muy fi nga naanee muy kër Mawlana Bay Cheikh Omar radiallahu anhu parce que dëgg dëgg dëgg ku wax ku wax te waxal yàlla rek sëñ bi sàkk nga sigil nga sigil nga sigil nga askan wi dëgg dëgg nga sa mbokki daara yi sigil nga sa mbokki taalibe yi soxna si nee na mi ngi lay santa mi ngi lay gërëm kontaan na ci bu baax a baax a baax a baax mi ngi leen ñaanal yàlla lii yàlla bu mu dakk yàlla na wéy te wéy gi yàlla bu mu xam dayoo yaa bi yàlla naa ci ndimbalal yàlla feeñ mi ngi ciy feeñ waaye yàlla na ci gën a feeñ yaa rabbi ci barke yoon yàlla maan bi jaar rasulillah man nag wax daf ma xaw a të léegi maa ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew jullit yu góor yi ak yu jigéen yi di nuyu sunu kilifa gu baax gi fi teew ñu koy wax Biteye oustaz moom ma koy présenté léegi avant moom ma koy présenté suma xarit bi ma toog dend ak moom mu ngi may wax naan ma xam naa ko mu ne beneen yoon nuyu na ñëpp mu ngi sargal ñëpp mu ngi sant ñëpp mu ne ci nuyoo boobu mu ngi jiital yaayam biñ ko dippee muy saydatuna asmaaw ne bés bii nag histoire moo nettali boppam mu ne bés boo xam ne tuddee neen ko jebel tuddee ko yaayam asmaaw di sëriñam mu ne démbay tey ndax maam xadi soxna ak mamad xoja ñoo jëloon Malick Cissé mi bokk ak xoja ndey ak bàyyi te jur ko jox ko Cheikh Omar Touré Cheikh Omar jur asmaaw yaayi Cheikh di maam Fatou Thiaten Cissé di doomi nijaay ak doomi bàjjen ci maamam moom ñu boole leen benn bis ci bëccëgu weeru koor bisi alquran mu ne histoire nettali na boppam waaye oustaz Mamour bi tey def na liggéey bu am solo ci loolu mu ne mu ngi sargalaat xariti ndongo daaraam yi mu ne moom Jabel Seck mii nga xam ne ñépp ñu naan kan la anamu mu ne amut lu ëpp ndongo daara yi maaw yi mu ne mu ngi profitoo wale ci biir loolu di nuyu nijaayu boppam di alxaaji Malick Cissé mu ne mu ngi profito di nuyu di gërëm xaritam yi nga xam ne semaine bi yëpp ñu ngi koy liggéey dimanche ñu war a noppale ñu bàyyi loolu ànd ak moom fii gërëm na leen ñoom ñépp jiital ci bekkaay ak ñeneen ñum tuddul mu ne moom bisam bi ñu tuddee ko bu ko neexoon ngeen gis fi tur yu bari borom tur yu rëy waaye moom ñim jàpp nañ ñooy xaritam te yàlla ñor na leen rek la fi indi kon yéen ñu ngi leen di ndokkee rawatina Cissé Cissé bi nga xamante ni euh, li ñu boole mbokk mën a doon. mu ne rawatina kenn ci mbooloo moomu di Cissé nga xam ne li leen boole mbokk rek la mën a doon. Diouf Cissé. di ñëwaat rek ci maam mu ne ginnaaw loolu yëpp mu ngi dellusiwaat ci oustaz Maomar bi su fekkee juumuma yow yaa sama xamale bi tey mu ne su fekkee juumut Ahmed Cissé di doomi nijaayam moo waral xamante moom jabel ak oustaz Maomar bi tey mu ne waaye nekkul ne li ko Ahmed junju mbiri oustaz rek moo ko ci dugal de ci mu ne moom Jabel Seck àdduna ñaar rek la ciy wut mooy nit ñu ut ko luñ mën a wóolu mu ne bu dee àdduna ak la ca biir àdduna mu ne moom daal banque yi la ci wóolu bu dee péncum yàlla mu ne suy wër ñu wóor comme ni banque dëkk bi rek. mu ne nekk da ngay jublu ci bi la neex wala li nga mu ne ni banque yi bëree ci dëkk bi kenn ku ne banque ba nga gëm rek wala nga yaakaar fa rek ngay dem. waaye oustaz ko def sama gestionnaire compte. mu ne moom nag dafa def oustaz compte spécial am ci pencum yàlla. allahu akbar. parce que pour firndeel ko man dama déglu audio wu Ahmed Cissé. mu ne pour firndeel loolu dafa déglu audio wu Ahmed Cissé. Sall ne ko ndax euh, orange gañ toogoon Gambie da ko lekk ndax borom autorisé woon nañ mu ne ndax orange biñ toogoon di ko lekk Gambie ndax borom autorisé nañu ko. ma dégluwaat audio bi mu ne dellu nga laaj ko ndax autorisé nañu la wala mu wax la la muy jaar fayante ko moom parce que lekk mu ne mu dégluwaat audio bi. ne us déggu ustaas ne demal nga laaj boroom orange bi ñu lekkoon orange am ndax may nañu ko suñu ko mayut ñu natt ñaata la ñu fay ko ndax àq baaxut mu ne kooku mën nañu jàngat ne ragal yàlla la ma leeral foofu rek li mu wax mooy Maomar bi bi mu nekkee ci daara ja nekk taalibe comme ñëpp bi nañuy def rek dem lekk ceeb kër jàmbur wala nga romb meññeet mu wadd nga for ko Maomar dafa bokkoon ci xale taalibe yi demoon lekk benn orange ci kër jàmbur bi mu demee ba màgg ba toog fàttali ko loolu mu xatal ko ci guddeeg bëccëgam mu yónni ma man mii ne naa ko demal ci kër ga wax leen ne at sàngam bi sàngam moom maa Omar lekkoon na fa orange ndax baal neen ko ko suñ ko baaloon mu fay ko loolu la jëbeel di wax. loolu dañ ko mu ne bi mu dégloo maa Omar bi tey yónnee Ahmed si sa message boobu ci la jàngat ne maa Omar mii ku ragal yàlla la. moom jëbeel mu ngi suufeel boppam mu ne comme moom dafa ñeme yàlla mu jëflante ku ragal yàlla ndax bu ko yàlla yërëmee yërëmaale ko mu ne looloo tax nag ni nit ñi di dencee xaalis ci bànk moom daal ngëneelam àllaaxiraam moom ci maamor la koy denc loolu moo waral nag yi looloo waral xarit tabaski yi looloo waral koppar yu ndaw yi looloo waral toni ceeb yi ndekete moom jëbeel mii looloo waral baas yi tey bi mu ngi bëgg yowmal xiyam bu ñu fa yeggee ci nu mu suufalee boppam bakkaaram yu bari yi maa Umar bi tey su ko yàlla séddee séddaale ko mu ne moom bu demee yowmal xiyam maamam yi ma doon tudd fii moom du laaj maamam yi du laaj Seydina Aliou Seck moom oustaz lay laaj mu ne yaakaar googu mu am ci oustaz maa Umar bi tey mii yàlla bu ko yàlla tas mu ne te moom it lu tax mu am yaqiin ne yaakaar googu dara du ko tas mu ne ustaas bi ñuy waajal gàmmo daaw mu ne ko ustaas man jëbel sekk dama gént ñu ne ma yonent yàlla muhammad mu ngi fi ustaas ah, mel ni ku waaru na ko ah jëbel loolu yéeme na di jëbel demaat ba mu yàgg première édition gàmmu mu mm, ñu jàpp première édition gàmmu daaw gi. fii na ci génn gi ñu ne ma yonent yàlla moom it ci kër ñi sant bi tey ci jotaay bi laa gis yonent mu nekk mu ne moom jëbel géntam googu ci at moomu. bim ñëwee ci jotaay bii nam génte woon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la gisee yonentu ci bëccëg gi ndar kàmb sekk ali ñu ngi lay ziyaare mu ne ndax moom sax mi dem bay gént yonantu noonu ci suufeel boppam mu ne moom amul tollul foofu si yàlla ndax moom ragalut yàlla mu ne kon daal moom ci suufeem yaakaar gi mu joxoon Maam Omar la ko yàlla faye ba mu mun a gis yonantu yàlla Muhammad mu ne di nettaliwaat beneen na saa yu amee soxlaam yu diis yooyu noonu bëcc ko maawmar mu ne saa yu demee rek mu sotti mu ñëw rek ndax maa Omar ndax xam nga moom saay-saay la <laughs> su ko defee dafay ñëw na ko ñaanaatal mu ne lim jublu ci loolu yëpp mooy ba tey rek mu ngi natt ki mu àndal mooy kan. dam dam dam ba jamono yi paase ma ne ko ustaas dama la ñaan loolee bu fekkee sottiwul dana am problème. mu ne su demee ba mu yàgg rek mu nappaat ustaas rek na ko li ma lay doon ñaan loolee bu sottiwul ma am problème. mu ne su boobaa ustaas ci oyofam gi rek mu ne ko bu fajaree daal dinaa jël xale yi doon tëri fii alxuraan ñu ñaanal la yàlla loolu wane bi yàlla la mu ne loolu wane ne Ahmed Cissé bi mu boolee Mame Omar ak Jebel ñoom ñaar ñépp seen ànd bi dañ ko teg ci yàlla tax Jebel daal mu ne mu ngi yëkkatiwaat kàddu sant ak ngërmande di ko gërëm mu ne moom jabel mu ne li ko maawmar bi tey defal rëy na bari na mu ne nit ñëpp ci àdduna leen koy woo tuddee neen la lii yaay parrain nangam moom rek moo ko woo ci alxuraan ne yow leen ko jagleel moo tax nag moom mu jàppee bis bi nu mu jàppeewul kenn ndax bari na bis yuñ koy tuddee mu jël xaalis def ko ci te tànkam du dem ndax yëfi caaxaan moom nekku ci mu ne àdduna moo bindoo ni kuñ nax rek daf la neex rawatina jamono ji nga xam ne bàyyi mooñ na xam-xam ba mu oyof mu ne ku dem fépp xam lépp mu ne ku mel ni moom nga xam ne dem na fu bari ci àdduna daje naag ñu bari seet na daal li gën a dal xelam mooy jàppanteeg Maam Omar mii te yàlla tax mu ne lu ci des nag bàyyee na ma ko ma yeggali ko moom mu ngi sant ñëpp xanaa wax rekk ne ki doon wax ak man doomi nijaay doomi bàjjan leen lum nekk nekk kilifa bu ko Macky la owoon sax ma taxawloo ko dana taxaw noonu la fonkee mbokk Jabel Seck mii daf doon ngénte doomam ànd ak soxnaam dem ci taawi Baye Niass faatuma Faatumata Zahra ne ko ñaanalal suma soxna mu am doom bi ko yaafaatu ñaanalee mu jël doom ju tuddee ko imaam Cheikh a ko ngénte keroog bi ko imaam watee may wax di gërëm ba mi biñ paree mu ne ma man waxlawuma la loolu da waroon a yem ci lu ma la wax rek man bugguma ku ma gërëm ci lu ma defut ne amul kum bokkal ci wàllu ndey te wàllu baay te yóbbuwut la màkka nijaayam jii di Malick Cissé bokk ak baayam ndey ak baay moo ko yóbbu màkka te Malick am na ay taaw am na ay doom yum jural boppam xamuñ ci lu mooy tey lay dem suba la ñëw ba ci nganale gi moom moo ko def ni mu ko defalee Malick la ko defalee Cheikh Ndaw noonu la ko defalee Ami noonu la ko defalee xoj Mawlaana Alaaji Cheikh Omar Touré radiyallahu anhu bi ñuy wax Mansour Touré nga xam ne Cheikh Omar daf ko waxoon na fa nga sonn ci Mansouram waccal ma ko file Mansour mu màgg moomu mu foor moomu daf ma oo benn bis ñaari fan dew ma ustaas mi moo ma ne demal uyu bi ma demee fekk ko ci lali hôpital mu ne ma jegeel ma jege mu ne ma jegeel ba su ma óomi di laal lali hôpital bi fi mu tëdd mu ne ma bés boo amatee problème bul génn dëkk bi maa ngi fi ma ne ko waaw mu ne ma man maa donn alquran si suma baay su ma benn doomi baay ñemewut a yëkkati loxoom ne moo donn alquran ci Cheikh Omar Touré mu ne ma man ni ma amee lijaaba ci kurus mel ni man yombut sóor moomu waxoon loolu bi mu feebaree faju Gàmbi feebar bi métti loolu mu ngi am jarbaat bu ko sopp te bëgg ko am cër ci moom di Babacar jaw moo toog nii sol dara ji mu ne ma Mansour sonn na ma ne ko dinañ ci ut solution na ko na neen ko indi dakaar man danaa ko faj te ba may wax loolu juróomi dërëm laa am waaye xam naa ne am naa jabel saa yu ma ko ne lii yàlla la te muy dëgg mu xool ma mu xam ne dëgg la ci man rek dana ko def waaye su ma ñëwee wax ko wax na dina ko segg téeméer yoon seetaat ko waaye su ma ko ne ci yàlla la jëm amu ci xalaat kon xam na ki muy jëflanteel xam na yàlla noonu la jabeel jëlee Mansour Gàmbi mu Cheikh Omar Touré te musut koo teg bët lu mooy bu muy ndaw te xàmmeewut ko faj na ko benn ni mu génn àdduna benn yoon la gisanteeg Mansour na ma ne su wéree ma yóbbu ko mag noonu la sonnee ci njabooti Cheikh Omar Touré boobu noonu di imaam Mansour te ba mu cay sonn kam sonnoon mooy ilimaani jumaa ja moo doon jàngale alxuraan kon noonu la defar Cheikh Omar Touré. noonu la mel ak ay mbokkam may doomi nijaayam waaye li ma sol moo ma ko jox kii ñawal ma ki Sall moom may ñawal Masaay culture damay toog rek moom xàmmewu ko ci wóolu ko lan laa ko waxoon gis naa nit koo xam ne ku màndu la ku ragal yàlla la te daaraam ji daaraay Cheikh Omar Touré la te man Cheikh Omar rek laa bëgg nag séedewuma bugguma ko ko séede ndax mbëggeel gi man la concerné Cheikh Omar a tax ma bëgg maa Omar moo tax may jëflanteek moom ba ma ko ko waxee rek mu nangu ko dañul di jël oto boo xam ne ñaari tonnes ñetti tonnes lay def di ko duy ceeb ba mu fees te du ceeb yëpp de ceeb bi siise siise la fay def riz parfumé saako 17000 la koy def ba oto bi fees ñu wàccee. ma jënd nga place ci suma xol bi waaye moom dafa jënd place ci jotaay bi kon ñu def noonu jël jot. bismillaahi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 الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di gërëm di leen sant comme ni ko mbokk yi waxee su waxtu wi guddoo nit mënuñ fee wax mukk lu mel ni kàddu yi nga xam ne jib na fi dippi bi xale yi di joxe addis ñu fekkee loolu ba ni conférencier bi pare lu waxtu wi di tënku tënku tabaarakallahu amut ruq buñ soxla rek te laalut ko te lim ci laal tabaarakallaa lépp njariñ la ñi ngi gërëm di sant bu baax jërëjëf Cissé ñi ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla saxal kolere gi ci sa diggante ak maam Omar sa diggante ak mbokki jullit yëpp conférence bi jot na tabaarakallaa ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp nag di darju mbir mi rek comme niñ ko waxee euh, suñu mbokku jebel mi ngi doon bëgg a dem ma ñaan ko mu toog te même bu demee liñ bëgg a wax mën nañ ko wax waaye mu toog daf may gën a neex lool ndax mujj ak jataay mooy mooy mooy barke bi barkeb jataay mujj ga rawatina jataay boo xam ne yow lañ ko tuddee yal na yàlla yombal yoon wi ba dem gi du am benn tardement yomb na yàlla yal na yàlla def loolu yaa bi jëbal ñi ngi lay gërëm bu baax di la sant bu baax di gërëm képp koo xam ne jël na loxoom jël na yitteem def ko ci daara ji yàlla mi am fay yal yàlla fayante ak yéen jëbal yàgg nañoo yëg sa yëngatu ci daara ji olof day wax ne geen ab golo gudd na waaye lu ca laal borom yëg ko daara ji yàgg nañoo yég sa taxawaay say yëngatu ci daara ji li nga wax lépp dégg nañ ko waaye wallahi la ñi ngi lay wax ne yaa ngi verser ci banque boo xam ne doo perte ba illaa yow mi diin te ñun day néew na lu ñuy yëkkati kàddu goo xam ne dañ koy teg ci xaal waaye ñi ngi warlu daara ji képp ku ci dugal sa loxo ak daara yi mel ni ñoom yaa ngi jaayanteeg yàlla jaayante goo xam ne wallahi doo rëccu doo perte te lii ñu wax xam nañ fiñ ko teg kon ku yàlla naroo dimbale rekk yaay jël sa yitte dugal ko ci daara yi parce que tey ci kaw suuf mën nañoo wax ne gisuñ benn barab boo xam ne yàlla rusee na ko xeet wi rusee na ko jamono bu raw daara yii nga xam ne ñi ngi ci mokkale alquran di ci yar doom yi gisuma loolu kon képp ku pare pour jaayante ak ñoom jaayante ak ñoom yàlla nga jaayante te jaayante nga ak koo xam ne ku jaayante ak moom da nga yàlla bu yàlla tas yaakaar yaa yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla na yàlla diggal yaakaar yépp li tax ngay def li ngay def yàlla am na pay yàlla na yàlla fay la ba nga yëg ne ba àddina yépp yëg ne yàlla fay na la ak képp ku mel ni yow di yëngatu loolu ci daara ji walla di ko yëngatu ci daara juman di doon parce que ñun daara yi rek lañu am moom la ñuy sagoo mooy suñu tiitar mooy suñu bureau mooy suñuy tool mooy suñu lépp kon ku yëngatu jëm ci loolu mënuñ lu may ñaanal yàlla parce que amuñ luñ fayante ak yow waaye danañ la ñaanal yàlla te danañ sax ci ñaan googu maam Serigne Mbaye Niass daf daan wax ne suñuy ndimbal nañ leen di ñaanal yàlla dimbale leen suñuy ndimbal nañ leen di ñaanal yàlla dimbale leen kon boobu dar su jar na jàng ci asi du fàtte day am kóllëre yal na yàlla fayante yéen Cissé ñi ngi lay gërëmaat bu baax ci conférence bi yal yàlla dëgëral taxawaay bi donga yi ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla barkeel yëngatu yi yal na yàlla barkeel njàng mi maam Omar nag duñ mën a def lu may danañ ko gërëm waaye jiital ñaan yàlla ci moom ak ñaan lu yàlla ci moom ndax taxawaay bi tabaarakallahu rafet na yitte ji kowe na liggéey bi rafet na sell na kon ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaan lu yàlla ci moom ndax li nekk ci ngëneel lii ak lott gi ci jaami yàlla yi lott ci kenn ku nekk ci sa doom mu taxawee lii ak ñi mel ni moom ci liggéey yu mel nii mënuñ lu may ñaanal leen yàlla yal yàlla dimbale leen yal yàlla wattu leen ci zaahir ak baatin yal na yàlla téyeel leen boppam kon loolu la ñuy wax te wax ne maam Omar liñ wax ci moom yépp yàlla ku yaatu may la waaye lépp nag daf ko donn lépp daf ko donn di ko donnee ci ay wayjuram di ko donnee ci ay maam ci côté ndey ak baay ba nim ko donnee waatee ci sëriñam alaaji Cheikh Omar Touré radiyallahu anhu kon lii nekk ci moom ak doxalinam lépp may seedeel mbooloo mi ne te maa ngi leen koy seedeel waaye gënuma leen koo xam lépp ndono la damay wax ne ku xamut baayam lu la réer ci baayam rek gis ko ci moom lu la réer ci baayam rek soo ko xoolee ci moom da ko ci gis dafi nag waxi nag jikkoog lépp nag ak bëgg njàng mi ak bëgg njub ak maandu gi ngeen wax léegi ci moom ci atta di wax sax ne borom orange ji bu fekkee mayut ñu orange am ji nañ ko ko fay loolu kuñ def ci yow mbaax kooku rekk moom loo namput lii may wax dama ko xam ndax baayam moo ma yar te daanul yarantu ku ñàkk caaxaan la ku bari xam-xam la ba dañoo mujjoon tuddee ko dictionnaire loo ko bett bett baat bi lum luxa luxa boo ko ko waxee rek mu wax la ko waaw lu néew nga koy laaj mu dem génne mun jiit bi xool ko tontu la waaye loo ko bett bett soo ko laajee baat bi lu luxa luxa rek sëñ daara dana la tontu dégg nga jëmmi bés Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ànd na ak maam Serigne Mbaye ñëw Koosi bi ko sëriñ daara di nuyu bi ko baay joxe loxo daf ne ana waa dëkk bi mbaa yéen a ngi dem ci ron Mor Roqi mu di leen jàngal boroom dëkk bay Amadou Roqi ne ko du kenn kuy dem ci moom di jàngi waa ko si caameen rek ñooy ñëw ci moom di jàng bàyyi nag ngeen dend ak làmp bu mel ni sëriñ daara Mor Roqi te ñëwu leen jàng maam Serigne mbay mi ngi ànd ak moom ne ku xam la ku ko jege danga nga xam lii kenn nettaliwuma ko ci sama kanam la nekkoon ku màndu la bu baax lii yépp xol bu sedd la ak xol bu tooy ngir démb parce que man samay mag ñoo ma yar te ci ëtt papam lañ nekkoon mu amee suñ lépp moom ak rakkam Mouhamad bi tey gënoon a siiw ci jumba moo tax ñii seen mbir du mën a tuuti ci man du nekk lu oyof ci man ndax def nañ ci man loo xam ne mënuma leen ko fay bay laa yow diin kon damay ñaanal seeni njaboot yal na yàlla téel leen boppam yal na yàlla defal leen jàmm yal na yàlla jox leen mbooleem seeni càkkutéef diiraa li ma nekk Kossy ci kanam papam seen yaay ñoom ñii muy maam Omar Sarif ak seen mag moodu ca Kossy tabaski gu jot seen yaay mooy jox seen baay tabaski benn tabaski dafa jot Sarif rakki maam Omar mi ngi nii imaam Sarif ah tabaski gi dana day waar ma ne ko yéen du ngeen jooy tabaski du ngeen ñàkk tabaski te xam naa li tax ma wax ko diiraa li ma nekk Kossy su tabaski jotee seen yaay mooy yëkkati tabaski mi seen baay di tabaskee jox ko ko bu ko tabaskee mu waat beneen seen papa dafa mënoon a yor dégg nga mooy jëlaat gàtt bi nga xam ne seen yaay jox na ko ko tàppulu ko. di ko yafalal boppam di ko yafalal boppam bu tabaski jotee macha allah kon kooku foofu laa sukkandiku ma ne leen yéen ku tabaski da ngeen tabaski ku tabaski wut tabaski kon ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm jataay bi di ñaan ci yàlla yal na yàlla nangu ñaan yi aousu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin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 wahab lana suriyatan mubaraka takuni lillahi bila musharaka wa jaasi anna kulla man qad ahsana ilayna min rabbil jasal ahsana بالمصطفى السفيع يوم المحصل وفاد بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق لنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا anta waliyuna wa mawlana fa ni'ma al mawla wa ni'ma an nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu